بذي الجمال بذي الكمال بذي المال بذي الدواء بذي العبادة بذي الإبادة بغرق عادة للأولياء بذي النوالي ليس الختال مر الرجال على الخيائم بذي زعبة بالإجابة جاء غريب بما من رياء ذاك المنير ذاك البثير لو أذير بذا زنائب لو غتاب في برودي في فنائي في أقول ولا أمور في أقول بلا بناء أني جزاك رب هداك فوق المناك يوم الجزاء تذاكر بي يا قلبي خير معبي بلا ابتداء إن القديم أيد أقيم ولا أريم ذا الابتداء أن مجرم غرور ومن غرور داي سقائي سند مكاني ست أماني هبلي زماني بذي البقاء عند ذلوقي إلى المليك مع موت النقاء أنت الجميل لك أمين أنت الرسول بلا جرائي لك لساني مع الجنائي ولا أداني كالشعراء أنت السبيل بك الوصول لمن ينيل خير الزرائم عجبت ولي تتخيل Uh... yeah. Mbacke mii toog moom sëriñ Cheikh mbakke moom sëriñ Saalihu daaw moo fi ñëwoon ci ndigalal sëriñ bi yeewi nu ñaanal nu ren jii ñu dundaat ba fekk ko sunu borom may nu mu dellusiwaat fi war noo sant ba noppi yeewi waaye balaa loolu dañ koy nuyu te yóbbante ci sëriñ bi nuyoo bi nga xam ne sëriñ jiili mii yónnee na ko mook taalibe mu àndal yépp ak bokk yi te nuyoo boobu ñeel sëriñ bi jëm ci sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou kon nag sëriñ Abo sëriñ Jili nee na mi ngi lay yónnee nuyoo mbooloo mépp ak siyaaru mbooloo mépp ci kilifa gu tedd gu baax gi muy sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou bu loolu wéyee nag Sering jiri Touré nena, mingi mi ngi bu baax a baax di santatit sëriñ Touba di sant it di santai sangam bu baax bii nga xam sering salihu, fi wutu sëriñ salihu tamat ko sëkk muy sëriñ Cheikh Mbakke ne mi ngi koy sant sant goo am na amul fum yam bu mënoon a wax sax day wax fa fa la waaye sant nag amut fu mu yem ndax li fekk teraangaa ngi am li fekk xéewal a ngi am li fekk dolli ngi am sant day am waaye ne mi ngi sant ci kemt laayal kàttanam sëriñ Cheikh Mbacke mi nga xam ne moo koy tànn mu neex ko mu di ko woo ci liggéey bii di ci tudd aw turam nee na loolu mi ngi ciy sant yàlla bu baax ci ñëw gi nga xam ne mi ngi ko ci ñëw tey ànd ak mbooloo mi yépp nee na nag mbooleem fu waay mën a jóge ñëw ci liggéey bii gis na la gis na sa taxawaay ci góor ñi ak ci jigéen ñi ña gën a mujj defee ne waxuñu leen ci ñoom lañu tàmbalee gis na ñépp ku ci ne li fi daj ak sa mbooloo mi nga indi ak coono yi nga jànkonteel ba ak si fii ci dal bi lépp xam nañ ko waaye nag li tax mu neex mooy kenn ku ci nekk wóor na la ni koo dajal fii ci mbooloo mi bu ëllëgee bu la bëggee yónni képp du ko man ndax la doxoon seen diggante moo dañ sëriñ bi moo moonu woo ñu wuy si ko ci ndigal kenn ku ci ne da dindi nawloon te teg fee dindi morooman te teg fee dindi àndandoo teg fee dindi xarit teg fee ñun ñëpp lu ñu gënaloon mooy ñu nekk ci ndigal li ba sëriñ bi ne jërëjëf nii laa ko bëggee woon te loola ci lañ nekk ba yàlla defal na ko nu amee ko nii kon nag coono yiñ fi daj nan ko fàtte te xam ni bi sa ngay ñëw boo xam ni ku koy jéem a def sa bopp bi di nga ko fàtte ndax sëñ Tuubaa ku liggéeyal mu fay la te ñëw fii du ngeen moroom moroomu ko fi dul ñëw mbaa ko fi mësta ñëw te it ba dinay tukki du ngeen yem ak ñi fiy ñëw di liggéey ay jaami yàlla ami néeg ami lal ami soxna am mbooleem lu nit ku baax di am amum xel wuyu si fii tëdd ci àll bi di fi fanaan subaak ngoon guddeeg bëccëg lu mënta ñàkk ba mënta ñàkk ci li ngeen laaj mooy ndoxum naan ak ndox mu ngeen jàppoo julli te sangu war na leneen nag leneen war na loolu lépp nag ngeen jaay ko ngir bëgg gi ngeen bëgg sëñ Tuubaa te muy dëgg ci yéen kenn ku ci nekk nga ñëw fi ñu jox la ay millions ni la jërëjëf tam wóor ni sëñ tubaa tax ñu wax la ko moo la gën a téeméeri junni yoon lu boobu baat nag la sëriñ bii yor dina ko indil noonu kon nag na ko mbooloo mi teewlu te déglu ko te xam ni jërëjëfe sëriñ bi mooy faj saa su ne sunu aajo jërëjëf ju bàyyi ko ci sëriñ bi mooy suñ caabi ci bunt yi ñuy ubbi muy të ku ko fi dégg rek xamal ni sa lépp baax na te noonu la ma sa demee nag waaye sëriñ bi dafa wax ni ñi ngi sant nag mbooleem ñi jóge ci raison yi ñu jóge jobaas ñu jóge ndar ñu jóge puut ñu jóge sibi xutaan ñu jóge cees ñu jóge tiwaawan ñu jóge bambay ñu jóge njaaréem ñu jóge dakar pikin géejawaay masaalik ñaari tali benn tali bàyyiwuñu kenn ñépp sëriñ bi gis na seen jëf yëg na seen taxawaay teyit nañ xam ne liñ fiy def sëriñ bee ñu ko gën a xam ca fam nekk wax naa fii ne liggey bi luñ ciy lu du doy ndax bañ koy ji di tracé tool yi ñun ñi ñep ci ñun bok ñi ci ëpp kenn ko biñ koy bayat ak di ci sonu ñun ñi ñep kenn yëgu ko biñ démé ba mbolo war te sëriñ bi leer ko ni li ndimbalul nit ñep la ndimbalul jam ñep la ci lañu nu won ñu ñëw leen gën jariñoo ko mag moo ragal yalla nak mo neexal a te ñun kiñ ko séqal ñep xam nañ ni da ragal yalla te du sank jëfi kenn yalla nak lepp lu ko du joom du jaawale te du sank moo tax mag mi ngi koy séqal muy kilifa la ngay wéeru ci moom di ko wettal saw ñaq nay leer waaye yéen fi ngeen ne bu leen ci yokk bu leen ci jaaxle bu leen ci laaj kenn xalaat bu leen ci déglu kenn li wér te wóor mooy dëgg-dëgg seen coono yi ngeen sonn fii ci yéen la bàyyi ko dal ci suuf waaye na ngeen xam ne sëñ Saliou yëg na ko bu wér sëriñ Cheikh mii lépp lu waaye di jëf ci moom na la wóor ni suñ borom a tàllal nga teg ci loxoom donte ne gisoo ko nag ndax fu wér def ab liggéeyam loo xam ne nag koy wax xañ nañu la ko gën a xamam koy dégg kuy xool ñëpp a yori bët di ko gis yooju wax jëru guddal sëriñ ji li daal moo waxoon ni nañ leen sant yéen mbooloo mi ci góor ak jigéen ñi nga xam ne yéen a fi ñëw te teew fi te ñëw jàppale ko ci lii nga xam ne sëriñam bi moo ko ciy woo noo ngi ñaan ci dara ji sëñ Tuubaa yàlla na ngeen ko yàgg a gunge ci woote bii nee na sëriñ Abo mu ngi lay yóbbante ci sëriñ bi ak cant goo xam ne moom sëriñ ji li war na koo santaat ginnaaw bu santantee bu santee mbooloo mi ba noppi ndax kat lii mu am aw xeetam kenn amu ko ci lii mu am ay moroomam kenn amu ko ci lii mu am ñun ñi ko xam xam nañ ni yombul ñëpp ci mbooloo mi wax naa ko bis bu set ku ci nekk am nga sëriñ waaye nag fekk ñu lu ba noppi nga boole leen ak ay nit ñuy jë ñuy ànd ak moom di liggéey ciy tool te comme ci sant lam la sant ngay def loolu sëñ Saliou dong ko man tolloo la sëñ Saliou defal ci bu wér waaye nag la tax nga mën loolu mooy sa jikko moo rafet ndax bu mbooloo àndee di ñëw ka gën a rafeti mbubb moom la ñuy njëkk a bëgg xañ na waaye ba ñu yàggee ki gën jikko rek la ñuy mën a defal woo nga nit ñi ci sëriñ tubaa woo nga nit ñi ci sëriñ Saliou woo nga nit ñi ci ñu ñëw tuur seenu ñax ngir yàlla waaye na la wóor ni bu dutoon ak loolu it sa jikko tax na leneen loo woote nit ñi danañ la wuy si ndax sag neex a jaxasool ak sag doon taalibeb sëñ ak sag bëgg lu baax mën naa ni ñaar fukki fan yi lu jiitu ñuy gàmmu ak léegi nelaw jaaru ci ñoom sëñ Modou ñii ak ñii xam nañ ci dara fan yee damay toog ba yàgg man leen moom day xanaa képp ku koy wax lekkal nga bàyyi bañ dem xel kom ba ñëw waaye li mu wër te wër mooy mënatu ko te ñii xam nañ li may wax liggéey bi fonk na ko fonk koo xam ne bu sëñ bi joxee ndigal bañ def woote bi tudd ci aw turam bu xëyee day dajale mbooleem jëwriñ yi war a séq liggéey bi berndeel leen ba noppi ci këram door leen a wax ni leen liggéey bi sëñ bi joxe na ci ndigal nit nag lu mu fonkul du ca def loola kon nag nee na mi ngi yónnee ci sëriñ bi cant goo xam ne sant na ko rëccuwut lu ko yàlla doon booleeg moom rëccuwut it doon àndeek moom rëccuwut it doon jéem di ko liggéeyal ak di sàkku li nga xam ne mooy bëgg-bëggam ak li nga xam ne mooy ngërëmam te nee na nag nan nga ko xamal ni ko mbooleem lim weesu fàtte na lépp lim dëgmal moo ko ëppal yitte waaye du jëf dara loo xam ni day rëy ci mom mbaa diko naw lum jall faté nako ko bi rek ak la ca kanamam di ak bëggam lay fexé num ci bi jote ak nuko ko bi amé to lolo lu neex yalla rek lay doon kon nak néna mi ngi sant bu wër mbolo mepp di yóbbante sant yi ci bi di ñaan sunu sëriñ ba sunu sang ba sëriñ Cheikh mbacké mom sëriñ saliw yalla na fi yag lool ta and ko wër na mbolo mepp wax ne sëriñ Cheikh saliw mbacké yalla na fi yag lool ta and ak wër jërë ngeen jëf ñu déglu ndigal nak mbooloo mi ñu jottali leen kàddu yi nga xam ne moo jóge ci sëriñ bi sëriñ Abo nee na moo ngi leen di jottali nuyoob sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Saliou nee na sëriñ bi mi ngi leen di sant bu baax te it mi ngi leen di gërëm nee na it mi ngi leen di ñaanal waaye nee na sëriñ bi it mi ngi sàkkuwaat ci mbooloo mi ñu ñaanal ko sëriñ Abo dafa wax ni. sëriñ Jili mii nu àndal sant gi nga xam ne moom la nu sëriñ bi di sant mi ngi koy jaarale ci moom mu ñëw ci mbooloo mi nga xam ne ñoom lay sant ndax loo gis rek day am ku nekk ca bopp ba ñu di ko tudd rawatina nag jëwrin ju mel nii nangoo nii moo tax lii cant nag tey jóge ci sëriñ bi sëriñ aboo nee na mi ngi koy jaarale ci loxol sëriñ jiili mi nga xam ne moo fi dajale mbooloo mi di wax ni nag xam na taxawaayu sëriñ Jili ci digganteem ak sëriñ seex xam na cofeelam sëriñ Jili mii ci digganteem ak sëriñ Cheikh nee na day dafay mel ni la daloon Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ tubaa ci buñ ko ko tuddalee sax mu taxamte ko dafa mel ne dafa dal sëriñ jiili mii ci digganteem ak sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou àgg na ci buñ ko tuddee. léegi nag mbooloo mi sëriñ Abo dafa wax ni li ma wax léegi muy di seede ci diggante sëriñ Jili ak sëriñ seex moom sëñ saaliw di wax ni dafa mel ni la daloon Cheikh Ibra Fall ci sëriñ Touba daf ko dal nee na loolee dafa mel ni dafa dal sëriñ Jili mi ci digganteem ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou àgg na ci buñ ko tuddee sax dafay mel ni day neex ci moom ba day tàqamti ko te loola muy lu wér di lu dëggu nee na nag bañ fi ñëwee ba léegi ci dem ci mbooloo yi lañ fi nekke jaar nañ barab yu bari dem nañ ci mbooloo yu bari waaye xam nañu ne mbooloo mu ci nekk rek ñi leen jiite wala ka jiite day feeñ ca mbooloo ma te nee na bi mu ñëwee fii gis na mbooloo mi seen takku seen pas-pas ak yar bi ñu àndal ak teggin yi te ba mu xëyee ba léegi ci mbooloo yi lay jaar kon nag nee na na xam ne nii ngeen mel mooy mbooloo mi nga xam ne moo noppal sëriñ bi ci yar ak teggin ak ci pas-pas ak ci passeef nee na daal sant mënta weesu sant nanu leen rawatina nag cant gu jóge ci sëriñ bi wax naa ni liggéey boo xam ne ki nga koy liggéeyal mi ngi toog waaye mi ngi jàkkaarloog yow danoo baax rek bëgg a dalal xelu nit ñi waaye xam nañ xel ni liñ jëf lépp sëriñ bi nangu na ko kon nag sëriñ Abo mii nee na sëriñ bi sant na leen gërëm na leen di leen ñaanal yàlla nag lu ngeen man ren ngeen man lu ko di ñaan itam balaa ndigal a jóg di ñëw ci yéen yàlla na ngeen mën lu ko ëpp ci góor ak jigéen yàlla faj seen aajo defar seen mbir zaahir ak baatin te def leen ay dëgg-dëgg taalibey sëñ Tuubaa lu ngeen mën a am rek yàlla bu ñu ñàkk sëriñ bi lu nu mën a am yàlla nañu am sëriñ bi ci darajey sëñ Tuubaa tañ yàgg koo teew ay at yu baree bari ngeen dégluwaat ndigal nag bu dee sëriñ bi dafa am lu mu ciy dolli mboq bu amul lum ciy dolli mu ñaanal serigne bi neena na ñu yag ko def ta yag ko fekke ndigal li yag juugi ci serigne bi ñu yàgg تنزلات بعد ثلاثي مع سنائي عن جرديت بك نزيد كما غنيت عن العناء لك امتداعي يا تسلاي آمين يا رب العالمين يا سلفلاي يا سلقناء في كونادي كل البلاد نجم عبادي بان الغماء فيك ما عود ما ابتغيت فيك ابتغيت خير النماء فيك تعبي فيك إيابي بالاقتراب لك انتمائي فانت عيبي أدبترتي تتتابي وتجنبي بلا كهب ولا هبائي يا غير ماي مهجناهي مع المداي والتصبائي أنا حبيبي يا من هبيبي إلى غيوب ولد بني يا غير واهب يا غير داهي يا خير داهي لتسمعي صلى عليك بمن لديك مسلم عليك عند رمائي عليك سلم دبا وكرم من بك عظم على دمائي بك أخوك بك أفيد يا من يدود ذا اتفاقي سبيل قول ناجر رسول ما الخبول ما القفاء ثوي السكاء لذي البهاء ماء القطاء ماء الجفاء فاك المتى السجاو السجاء بيره واللباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك زفي ذو الاتباء هذا العذيب ساق النذيب هذا العجيب بعد العجائب